xam naa ni sax fàttewu leen bis bi ta mooy dix-huit safar bismil ilaa déglooti leen ma soññu ndaw yi daggi leen xam naa ni sax fàttewu leen bis mooy dix-huit safar fas lu mu daw ñu labbali alir lu ñëw ñu feddali kudul taxaw mooy yeggale taxaw amul 18 safar ku mën a way war na mu way ku mën a jooy war na nga jooy te jéem jëf ngir bañ a sooy màggal bisub 18 safar tax yow ñu mel ni jur ndem xam nga lii fonkal safar nekk ci tey waajal ganeen màggal tabul booleeg la neen màggal nuroowul ak la neen bu leen wutal wujju safar sun bi si ak sun bi si baay ak suni maam ak sun di jaay kaamil tey jataay fasaale leen ci biir safareem tabis bu dul màggal gi jarul di def juuju pitax ndax lépp day dee funuxu nan mooy bisub 18 safar way deeya xam nan luy safar safar dafay fegu naqar xéewal ya dal di leen di wër ñépp ni wii weeray safar aljana yees xéewal yi yees safar ñu teggi seeni tiis li fekk bisub màggal di wees kenn du fa seeru aw naqar ku weddi lii nga laaj xam Seex Saalihoo ko wax ma gëm ku yewwu def ko muy bisam maslaaji bis bu dul safar màggal gi mooy texek murit te mooy di cib marit ci lan rawantee ñun murit ku yewu day fonk safar màggal gu jàll yokku am yoonu murit gàddooti marit yurus ñi ñàkk jom te ñàkk taw feex niw sagar gu jàll yokku am yoonu murit gàddooti marit yurus ñoo ñàkk jom te ñàkk tawféex niw sagar ku dib murit jóg jot na kat mbaalu ko mooy nga perte kati sasas wi góor góorlul mu mati te jëf bisub dinu safar baramu Tuuba kenn ko naa yaakaar la bi moonu ko joxu goreel te jëf ku daf di say mooy jéema naax ahmadu moom jaawale sax fat na ci moom jógal te fax badun la man 18 safar jëfal te jël jël loo fi murit wutal saw nag taren di doog a sol mbanee yu ci biir safar jëfal dajal doo mën a jël murit wutal saw nag taren di doog a sol mbanee yu biir safar jëfal dabul doy loo la jëfi baay bul ñàkk jom mbaa sëf sëriñ lii nan ko xam ku nekk jëfam 18 safar fexeel sa baay ba bum la raw fexeel sa doomit bum la raw sab taalibeet ba du la yow sëñ bi jëf 18 safar ku la ci raw raw la ba faw wu faw yow dawal baraw borom Tuuba ko wax ca kaw njëkkante bey 18 safar sa baay lu wàqi nan ko suul tasab sëriñ yow dee ko xool balum ci jëf nga def ko tool tabayi ko waajale safar màggal xamul doom ak i baay sëriñ bi ak dong bi kay ku jëf ñu jox la luy safay fexeel baraw ci biir safar màggal xamul doom ak i baay sëriñ bi ak dong bi kay ku jëf ñu jox la luy safay fexeel baraw ci yow ci safar maam seex ne woon na ku yabal sa doom mu dem liggéeyi jil borom tuuba sa cër la jël nekk sa bayta yaa ko jur ku ci yabal sa soxna yit saa bu ñëwee yaay wa dukkateek dugg ci waañ togg yëteek ko tey ne moom mooy sa jëkkër ku ci yabal sa taalu bee toog muy liggéeyal sang bi saa bu ngay donga bi muy sa sëriñ nii li ko jar ku ci yabal taalu be toog muy liggéeyal sang bi saa bu ngay donga bi muy sa sëriñ nii lu ko jar kon mbir mi leer na màggalal maggal safar moo lay jagal kii di gan ak ki koy dalal ñépp la jëf weeru safar kon mbir mi leer na màggalal màggal safar moo nuy jagal kii di gan ki koy dalal ñépp la jëf wat ci safar kon mbir mi leer na màggalal màggal safar moo lay jagal kii di gan ki koy dalal ñépp la jëf war ci safar ndigal li ñun ñépp a ci yam ku dib murit fexeel ba am loo def ci bis bi door dem tuubaa di teew 18 safar mag ak ndaw jigéen nga am yóbbal bu doon boo yóbbu Tuubaa da tewen nga am gëléem tëtër mag ak ndaw ba am yóbbal bu doon boo yóbbu Tuubaa ta dewen nga am gëléem naa far taxaw konta ñaan seex muntaxa xéewal yu doon yaram yi wér lépp di xiin di dotti waa fi safar jawrin abu mum siñ moor mi doon ki ñàkk kem ci fonku màggal am na jom du waaj lu dul 18 safar yal na ko sëñ bi yokki yokk ko kattan moog ñi ñam ak ko sopp mbaa dem daaram bisub dix safar yal na ko sëñ bi yokki ndam yokk ko kattan moog ñoñam ak ko sopp mbaa mu dem daaram bisub dix safar bépp murit yàlla na joor lu sedd xol ni ko ko fuux murit bu ñuul mbaate bu weex ba mën a waaj dix-huit safar bépp murit yal nan ko jox lu sedd xol ni ko ko fuux murit bu ñuul mbaa muy bu weex ba mën a waaj bisub safar amin ci barke sayxuna seex muntaxa màggal banaa dootu fu mel ni bii xanaa di waajalat beneen safar bi ka sa maliki kaw ya nuura saaliki wasan jiza bi naasiki bi man jalaawal mubhami wa ay yaquuda li nabi في أبد بالنقب سلامي المقرب بالانتهان والمختم